bi nga xamante ne président de la république son excellence Macky jël na ndogal ne démb journée day national la woon pour ñu ñaanal ñi nga xamante ne dañu loru génn àdduna ci yëngatu yi fi amoon ci fan yi ñuy ñaan yàlla bu loolu amati ñu jiital Sénégal te bañ jiital intérêt personnel su ko defee ñun ñëpp dinañ mën a ànd joxante la ko liggéey pour njëriñu Sénégal waaye waxtu bi loolu di am am na suñu mbokk yoo xamante ne ay dirigeants sportifs lañ yàlla jël leen. mun nañ ci jël ko tudd Mamadou Diallo waaye mun nañ jël ku ràññeeku muy président Sport Boule Gazan Ezidine ñu tudd gën ko xam ci gaz yàlla jël ko ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko añana xare ko ñëpp ñi nga xamante ne génn nañu àdduna ñi gaañu yàlla wëral leen kilifa réew mi jël décision ñu alléger li nga xamante ne moom mooy couvre-feu bi waaye ñu jëm ci le 20 le 19 à minuit muy jeexal li ñuy tuddee état d'urgence wala état de catastrophe bi nga xamante ne moom moo fi am loolu bu jeexee yeneen i taxawaay dafa war a am taxawaay bi war a am mooy dinañu fexe ba nga xamante ne nit ñi dinañu mën a dellu nag seetaan li nga xamante mooy jongante yi wàllu tàggat yaram loolu bu ñu ko waxee làmb ji dina ci gis boppam mais yeneen discipline yi dinañ ci gis seen bopp waaye li ñuy ñaan kilifa yi ñi nga xamante ne ay kilifa lañ te ñu jiite tàggat yaram ci réew mi comité olympique ak fédération yi dinañu gën a waxtaan ba ñu xool fépp fu ay nit ñu bari di daje nu ñu baree bari it war nañoo li nga xamante observer mesure barrière yi mooy il faut ñuy dàndante mètre lu mu tuuti tuuti il faut ñuy takk masque il faut ñu am li ñuy raxasee loxo yi di xool température yi loolu bu ñu ko defee defe naa ne làmb dana mën a am leneen dana mën a am ci anam yi nga xamante ne noonu la daan amee te lor du ci am loolu lu am am solo la ñu koy souligner di gërëm nag ñi nga xamante ne commencé woon nañ huis clos yi te di ko def ci anam bi ñu ko waxee woon loolu lépp nag dinañ ko gën a càmbar fii ak le 19 su ko defee nit ñi mën a dellu ci jàmm dellu ci li nga xamante ne mooy jongante leneen li nga xamante ne bëgg nañu ko wax mooy ci wàllu tàggat yaram Sénégal tey ci waxtu wi ñu toll taxaw na ci place boo xamante ne ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey mosu faa taxaw ci wàllu football. tey jii ñuy wax ak yéen président fédération sénégalaise de football muy maître Augustin Senghor taxaw na nekk ci li nga xamante ne moom mooy premier vice président mooy deuxième personnalité di football africain loolu nag bu amee. ci xereñu fédération la ci profiilu président Senghor la waaye ci jàppandalu président de la république président Macky Sall jox instruction gouvernement am jàppale ko ne ko na nga dem ci compétition yooyu waaye deme ci pour defar pour dajale bañ ci dem pour que bu paree mu am ay cassure bañu ñu ciy doxit xalaat nañu ci ci fulla ak fayda ak xarañ bañ demee ba xamante ni dañu war a waxtaan nangu nañ waxtaan wi bañ waxtaanee li ñu ci am di nga gis nag ñu jàpp ne comme président lañ bëggoon te yegguñu fa mun nañ ko gisee mun nañ leen ko nangul waaye li ñu war a jàpp mooy fu dara newul boo fa defee dara war ngaa bég ci la nga fa def tey c'est la première fois Sénégal di nekk candidat pour jiite kuréel gi nga xam ne mooy gérer football bi ci Afrique ci xeex bi ñu njëkk sumb ñooy deuxième personnalité loolu lu ama am solo la loo xamante ne c'est une grande première pour le football sénégalais loolu nag li ko waral mooy liggéey bu rëy bi fédération di def ci réew mi ak fi mu yóbbu football mais aussi jàppandalu réew mi surtout ku ko jiite le président de la république Macky Sall kon dañuy féliciter Augustin Senghor di féliciter l'ensemble des membres de la fédération di féliciter l'ensemble des sportifs la presse sportive ak ñëpp ñi ci jàpp parce que candidature u Sénégal defe naa ne ku tekkiwul lu bari bu ngeen demee ci négociation duñ la jox dayo bu toll ni nga xamante ne moom la président Augustin Senghor yore fii ñu toll li nga xamante ne nag mën nañ ko ci teg te mu am solo moom mooy euh, fii ñu jëm fii ñu jëm yolomal am na pour que nit ñi dellu ci li nga xamante ne mooy infrastructure sportive waaye nag du doon ñaax fàttali lay doon parce que ñi jiite sportu Sénégal man ministre des sports am naa mbégte ci ñoom acteurs sportifs yi am naa mbégte ci ñoom parce que taxawaay bi ñu wone ci jafe-jafe parce que nit balaa ngay xam tolluwaayam jafe-jafe am jafe-jafe bi mu amee kenn footballatul kenn defatul activité sportive kenn bëreetul mais kenn caalitul ñëpp taxaw nañu ànd ak réew mi ànd ak njiiti réew mi ak gouvernement xeex li nga xamante ne mooy pandémie bi ba tey jii ñuy am yaakaar parce que vaccination ñëw na te ñuy am yaakaar mu gën a wàcc loolu nag bu fekkee ne am na. dafay jaadu ñu sant acteur sportifs yi ak mouvement associatif ci seen taxawaay muy ñëpp nag waaye lamb ji aussi nga xamante ne ñoom rek a commencé gul li nga xamante ne mooy compétition ñooñu tamit dinañ leen sant parce que li métti bi muy njëkkee ñëw samedi bañ jël décision ca dimanche ba am na promoteur bu waroon tëgg te tëggul mais caalituñ dañ jël seen alal andi jël seen i matériel andi. ba pare dugg ci sensibilisation tey nag bu demee ba ñu xam ne war nañoo mën a delluwaat ci làmb ji arène ba peut-être duñ fa mën a def 15000 places waaye war nañ faa mën a def peut-être 8000 places loolu day nekk lu am solo moo war leen cee sant nag sant leen ci seen taxawaay mais sant leen ci seen woote pour jàmm am ci réew mi kon bëgg naa daal bés bi di ajuma ñu am ci ndam lu am solo ci taxawaayu football ci Afrique am ci lu am solo it ci li nga xamante ne mooy doxalin réew mi ñu am ci it espoir bu juddu ci ñun ñëpp li ñu namm ngeen namm ko yenn presse sportive bi dellu ci jongante yi fekk fa kilifa yi muy am ambiance defe naa ne bu ñu toogee tey yàlla won nañu ne àdduna ay neex la ak ay naqari li ñu njëkkee mooy perdre kilifa goo xamante ne jóge na fi muy nekkoon ku am solo ci gestion sport bul ci ci ci Sénégal ci bi mu demee ñu ciy wax tey am nañu pal feneen boo xamante ne kon dañu war a am lecture philosophique de liy xew ci réew mi te ñu xam ne loo jëndee jàmm jàmm jàmm ko gën jàmm la ñu war a ñaan ci réew mi suñ te mouvement sportif bi vertu yi ñu xam ci sportif mooy jàmm nañ joxante loxo liggéey pour développer suñu sport